fier nañ merci beaucoup Madione hmm. am na mbégte lool euh, ñëw ci sa plateau. Hmm. Euh, di nuyu téléspectateurs yi ñuy suivre yëpp. Hmm. di nuyu waa Sénégal yëpp. Euh, di am mbégte comme ni nga ko waxee. après benn moment. ñëwaat saafonte ak waxtaan. si li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mooy sunu réew. donc mbégte laa ci am jàkkaarloog yow. xam sa professionnalisme. ak sa objectivité. te ñaan yàlla waxtaan wi. Mhm. doon waxtaan woo xam ne ku ko déglu mhm. dina si jëlee njëriñ loo xam ne jëriñ suñu askan tout simplement effectivement jërëjëf alors may fàttali leen aussi euh, fan yi ñu génn daal di ngay bind mhm. ab euh, livre téere bi nag yaa ngi ko duppee le projet euh, souverain les dix fondements du plan de euh, refondation du Sénégal n'est-ce pas alors incha allah xam naa ci biir waxtaan wi jombul daan ci njëw ci anam bu mu gën a yaatoo ak euh, di refondement yi nga xam te nii tuddee nga ko ak projet souverain beeg ñoom seen balaa loolee nag ñu wax leen nag li nga xam ne moo nekk ponk yi nar bokk na ci li nga xam moom moo jëm ci wàllum nag euh, parrainage beeg euh, li nga xam ne moom moo wundu ci ginnaaw gi seen leader Ousmane Sonko mi nga xam te ne ba léegi mënta jot li nga xam ne moom la ñu duppee ay fiche de parrainage waaye tamit loo xam te jëm na ci wàllum justice aussi euh, ak li nga xam ne aussi moom moo nekk ci grève de la fin bi mu nekk ak santé bi nga xam te ne aussi xaw na jagadi lool loolu yëpp incha allah ci njëw ci anam ba mu gën a yaatoo présidentielle yi ñuy waajal alors bala ñu dugg ci question yooyu Moussa euh, gis nañ ni am na benn moment boo xam te ni kenn gisatu la ci plateau yi mhm. euh, ñu bëggoon a xam mhm. euh, lan moo ko waral. merci beaucoup ci ci question boobu. Mhm. mu nekk une question importante. parce que nit ñi boo leen tàmmalee sa sa kàddu. ak sa taxawaay boo toogee benn moment un mois mois et demi. dégguñ la. dafa jaadu. nga joxe explication ak ci ci cadre waxtaan. dara waralu ko lu dul dafa am benn moment boo xam ne dama sentiroon vraiment liy ñëw. da nga sentiroon liy ñëw ne confrontation lañ jëm te réew mi ñu nekk ñoo ko bokk te lu mu metti metti metti. Mhm. Sénégal on est des frères et des sœurs problème lu mu rëy rëy war nañ koo mën a rek régler. Mhm. donc loolu taxoon ma jël suma responsabilité waxtaan tam tam ci samay kilifa parce que man du ma def lenn loo xam ne. ku mel ni Ousmane wala ñeneen yëguñ ko donc démarche boobu yëpp ku xooloon sorte yi ma def juste avant arrestation beeg yëpp logique bi moo nekkoon nañu waxtaane réew mi parce que jàmm gën lépp bi nga xamante ni nii nag gis nañu nattu bi dal suñu kaw mhm. nattu woo xam ne dafa dal ci Pastef ñu daal di koy tas di solution bi mhm. ensuite ñu arrêté le président Ousmane Sonko ci loo xam ne ñëpp xam nañ ne teguwul si dëgg ma gis ne dañu attaque organisation bi attaqué leader yi mhm. contexte boobu ma xam ne dañoo dal ci ce qu'on appelle la kii mais li ëpp solo li nga xamante ne nii moo tax tey fukki sénégalais yoo jël lu ëpp ak juróom-ñaar ñun lañu àndal li tax loolu du couleuru ab parti du jëmm nit mhm. mais li tax loolu projet bi nga xam ne dañ ko yëkkatil moo taxoon ma ne naa poser un acte politique mhm. et ouvrage bi mhm. moo nekk la véritable raison bi nga xam ne il me fallait un retrait pour bind parce que bind nag ku ne xam ne ne mhm. production wu ouvrage wu quasiment deux cent vingt cinq pages boo xam ne day commencer sur l'analyse jusqu'à la dimension sociologique même des problématiques de notre société jusque impact bi mu am sur notre organisation étatique ba conséquence yi mu am sur nos conditions de vie d'un point de vue économique ba noppi nga bëgg a expliquer nit ñi ne au-delà de li ñuy dund dafa am ay dog-dog yu nekk suñu société yoo xam ne loolu mooy véritable problème bi mhm. problème bi du du ñu nag ñee du du débat bi du question rek ñaari parti yuy opposé wu mhm. askan wuy évoluer la toll ci moment jël ay décision yu am solo c'est un débat purement politique mhm. buñ ko personnaliser buñ ko militariser buñ ko judiciariser nañu nangu poser le débat politique d'accord donc retrait bi ma def retrait mhm. c'est parce que dama xool ba xam ne def nañ benn offensive suñ kaw mhm. te li ëpp solo dañoo jàpp ne nit ñi la wala structure bi donc il m'a fallu man jël du recul pour revenir avec à travers un ouvrage mu nekk sama contribution personnelle et sans prétention aucune mhm. pour wan ñëpp ne le débat n'a jamais été des problèmes de personne mhm. le débat a toujours été le Sénégal ban ambition lañ ci am ban projet lañ ci am loolu moo ñu opposé ak ñii te lépp lu xew ci mhm. ci ci alan ci entourage bi rek ça tourne autour de ça donc ñu bañu oublier l'essentiel donc retrait bi ma def retrait nekkul lenn lu dul ku xam ñu ne ci bind livre xam ne c'est un travail boo xam ne boo koy def boo mënoo ko booleeg leneen surtout boo nekkee ci phase bi nga xam ne ci nga war a finaliser yenn yi donc dafa laajoon benn retrait mu nekk loo xam ne maa ngi ci sant suñu borom parce que nag c'était pas évident ci contexte bi ñu nekkoon euh, le président Ousmane Sonko est très heureux ci ci ci ci ci ci liggéey bi am na ci mbégte donc loolu bokk na ci ci lu may santé suñ borom ba noppi militants yi itam gis naa ne am nañ réaction boo xam ne mm. jéggi na li ma xalaatoon ils ont compris la démarche ma ci sant suñu borom bu baax. d' accord alors Moussa. Mhm. Euh, euh, tontu nga ma ci que ne soo gisee nga def retrait moo nekk. Mhm. dafa am benn bata benn livre. Mhm. Euh, téere boo doon bind. mais ci say kàddu aussi da nga ne sentiroon nga liy njëw. te j'ai pas compris exactement lan nga bëgg wax foofu noonu. boo ma tontoo boo ma expliquer exactement li nga bëgg wax ci sentiroon nga liy njëw. bëggoon naa xam aussi est-ce que yow. ku la xam sa ñu jàpp seen leader dissoudre seen parti nga toog ci sa ruq di bind livre mhm. est-ce que loolu aussi c'est cohérent santiroon naa question bu am solo may commencé ci question bu njëkk bi mhm. santiroon naa ñëw mooy j'avais le sentiment que Macky Sall narul bokk ci élection yi mais il va tout faire que ñu bokk ça j'avais j'avais ce pressentiment c'était c'est la lecture politique que j'ai toujours eue partagé nga ko ak ñi ko bokkal wala ko war a waxal ñëpp ok ça c' était quelque chose bu nga. ba ci Ousmane Sonko. non xam nga mënuma dugg ci ay détails. d' accord mais li ma mën a wax rek mooy. c' était une lecture politique bu nga xam ne je l' avais et ku xool su may sortie publique parce que temps yooyu maa ngi doon defee sortie ñëpp xam nañ ne j'avais ce sentiment et j'ai même appelé mm -hmm. que ne ñun pare nañ vraiment pour vraiment mettre euh, xool ne réew mi moo ëpp solo ku ku hmm. bëgg a xam li may wax na dellu ci émission yi mënuma ci delluwaat concrètement li ma doon wax. d'accord maintenant arrêté nañ suñu suñu suñu suñu leader euh, dissoudre nañ suñu parti euh, am na loo xam ne liggéeyu biir néeg la am na loo xam ne liggéeyu biti néeg la mbir mi du toog ci plateau rek ku yaakaar ne euh, participer ci gestion parti politique mooy dem ci plateau de télévision yi <laughs> yaa ngi yaa ngi nax sa bopp. Hmm. ça c'est pas ça c'est pas le, gros du travail. surtout boo nekkee membre du cabinet. am liggéey boo xamante ni da nga ko war a dox mu lay jëral sa temps bi yëpp mhm. donc liggéey boobu soo koy def nga ko boolee en même temps dem ci plateau ba noppi bëgg a bind livre c'était pas pour man nous avons tout le temps et puis euh, formation politique la force aussi mooy temps bi nga toog di def benn liggéey pour la formation mhm. am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi def beneen ñu ngi ñu ngi ñu ngi def beneen liggéey mhm. ñeneen ñoo xam ne ñu ngi lay ñu ngi combler le vide la parce que nag Superman amul fenn c'est-à-dire que <laughs> koo xam ne il doit être partout def lépp ça c'est impossible c'est omniscient omnipotent c'est pas possible mm, mm. et puis c'était un contexte où le débat était très juridique fallait laisser aux membres du cabinet ku ni Amadou Ba qui a qui a démontré ses capacités de ouais. les avocats de montrer ak Tall mm -hmm. c'était leur temps parce que des fois aussi il faut savoir kenn ku nekk nga xam sa ligne de communication ban moment la gën a mën a frappé ak ban moment le la la nga xamante ne nii il faut laisser la place aux autres parce que mbir aussi du njëkkante du du question de visibilité man gowma loolu si politique pour man on est une organisation on est une équipe kenn ku ci nekk am na moment bu nga xam ne tu sens que tu as la possibilité de faire quelque chose d'accord xam nga tey bind livre sur le projet de PASTEF ci mmh. contexte bi mmh. ku ne amul solo c'est parce que tu n'as Effectivement. Et ça ne pas aujourd'hui de revenir sur les plateaux beaucoup plus en forme et prêt à en découdre. <laughs> Encore plus plaît. Et, surtout quand tu as fait ce travail d'incubation pendant deux mois et demi, ouais. tu, tu, tu, reviens avec quand même beaucoup plus structuré. Parce ouais. que écrire un ouvrage, c'est un travail sur toi-même avant tout, avant de faire un, un, tra un travail sur autre chose. D'accord. Donc, c'est purement stratégique. C'est pas que ni, euh, li ñu li ñu def ci liggéey ci suuf kenn xamul nu parce que fu ne dugg nañ fa. Mhm. lu ne def nañ ko lu ñu war a def yëpp def ko. d' accord voilà d' accord loo xam ne kenn mënu ko sax. d' accord dinañ dinañ ñëw